jeunesse bi comme ni mu koy waxee chaque jour. Ah, jeunesse <laughs> waaw waaw Siteu bu jeunesse bi mu demoon nag Dubaay ñëw nag indil ñu Serigne tey Serigne bi laa ñëw jël si. uniquement moo tax ma tey ñëw fekk si ko fii na a waxtaan ak moom waxtaan bu am solo bu nuyu naa la bàyyi nga nuyoo jeunesse bi. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli génn di sant samay ñaari waajur di sant waa géejawaay bu baax di sant diaspora bi xam nga. Mm-hmm. waa surtout waa diaspora bi waa Canada France. Espagne xam nga Amérique ñëpp daal maa ngi di sant bu baax di sant tamit waa Dubaay bi ma jugee bu baax. waaw di bëggee daal fépp fu fan sa Bou Siteu nekk rek maa ngi di bëggee bu baax di bëggee waa Ngaye Mexe xam nga. waaw dëkk yi Kaolack. waa fépp foo xalaat daal am naa fa ay fan su suma Thiès. Mhm. waa Thiès ak ñëpp. waaw Tiwaawoon Pël. waaw kër Ndiaye loo fépp daal mooy lool di nuyu waa Tivaouane Pël bu baax a baax a baax na di nuyu waa Géeja waaye Massa Ndiarème xam nga mhm. Massa bu bees bàyyi laay ñëpp daal maa ngi bu baax mhm. di nuyu tamit fi nga ma fekk nii waaw muy Seck Global waaw Seck Global borom iPhone yi koo xam ne di jaal ci iPhone baaxul di jaay ay enguro iPhone ay xam nga ay Samsung Foldo. lépp loo xalaat daal ay prothèse chargeur yu original. waaw ku si mel ni Seck Global ñu maa sant bu baax tey nag fii dañ indi indi émission bi di ko defee fii. di la nuyu bu baax a baax di nuyu garant bi ku si mel ni Seexuna Seck. borom Amérique xam nga di ko nuyu di nuyu soxna si nekk si place bi nekk soxna su baax. ak suma jàmbaar ji xam nga <laughs> ñoom ay bàyyi ay champion lañ daal ndeysaan. leen nuyu bu baax a baax alors Bou nga nga jóge fi nga xamante ni moom moo di Dubaay mhm. laataa sax ñuy xuus ci Dubaay ba yooyu mais Bou dama bëgg xam lan moo indi sa dem Dubaay parce que man dama laa woo mhm. nga ne ma maa ngi ni aéroport damay dem Dubaay affaire bi bett ma waaw affaire dafa laa bett waaye gis nga ba may woo ba maayoon si kii bi toll aéroport net waaw mhm. ne la maa ngi nii di voyager mu nekk daal lu ma bett daal mhm. waaw ba pare lu ñu naan tukki day bette waa am na sax ñu ñu ñoo xam dañ naan buusa la moo tax tàggoo ma mhm. dañuy tukki kenn du tàggoo ay tukki ah xam nga rek tukki moom kenn du si tàggoo fii ñu fi tukki ñëpp kenn muusumaa tàggu ah? kon man su may tukki du ma tàggu kenn ah. damay baa ba yegg ngeen xam ne maa ngi si dëkk bu baax dëkk fël-fëlaale. dëkk sànneeku waaw dëkk sànneeku. dëkk <laughs> maanaam dëkk bu valeureux. Uh-huh. kuy wër dëkk bu valeureux. Uh-huh. demal Dubaay. Uh-huh. waaw. dëkk bu am kii daal. dëkk bu neex. dëkk boo xam ne téeméer. quatre-vingt-sept mille la fa. kon eh? loolu neex na wala neexul téeméer. téeméer quatre-vingt-sept mille. sept mille waaw kon loolu waaye yow ça fait opposé ak dëkk Dubaay wu neex bi waaye. Eh, bokkut dëkk bu am xaalis. dëkk boo xam ne amul président. dëkk bu amul président buur la am. ah buur ba dëkk jàmm la moo amul benn amul président. ah d'accord. waaw Dubaay moom kenn dootuma fa naxati sama dëkk la. yaa ko moom léegi Bou Siteu borom Dubaay léegi. Hmm? bu ma kenn waxati Bou Siteu borom Géejawaay. borom Bou Siteu borom Dubaay. waaw Géejawaay ba duñ la mere. non. waa géejawaay sax ñoo gën a ñoom ñoo gën a xam ne Bou Siteu dañ koy ñaanal mu nekk Bou Siteu borom borom borom diaspora bi waaw mais mais mais mais bu comme ni ñu ko waxee ni jeunesse bi dañu laa mere ndax lu tax ñu mere la mooy bi ngay dem tàggu wóore ba pare non seulement nga dem yàgg ma dem nga dem yàgg fa non yàgguma fa sax parce que dix jours dafa yàgg sa ñoom non man trois mois laa fa waroon def hmm? trois mois laa fa waroon def mais ma nekk foofu di dégg buusita war na jeunesse bi ay ñoo xam ne ay yàq kat la ñoo xam ne maanaam ñiy wax loolu ñooñu bëggee wuñ buusita ah. maanaam ñooñu dañuy ànd ak buusita nii rek mais mu musuñu bëggee buusita amaana li ma leen di bégal rek loolu moo loolu moo leen neex hmm? mais gis nga nit bu lay bégal ngay kontaan hmm. maanaam kooku lu mu am yéene ko ko waaye bul wax wax bu ñaaw man waxoo dafa ma metti de fooyoo ma ko sax parce que koo xam du warkat man man du ma warkat man am na ñoo xam te dañuy tukki ñëw changé nekk beneen nit. am ay mm. yeneen xarit yu bees. Mm. ñi ma doon àndal laay àndal ba léegi. ñi ma doon dégganteel laay dégg maanaam man tukki fukkul sama bët. luy tukki ay yéeg avion. Mm-hmm. mu ngi mel ni mooy yéeg saretu mbaam rek man noonu laa ko jàppee nii de. Ah. wallaahi yéeg avion saretu mbaam laa jàpp ni si laa yéeg. d'accord ma rek rëyul ci man daal ci yow ah. ëpp lool tamit du maa ëpp lool sama niveau sax dépassé na ay di bëgg-bëgg lu yëg avion hmm? waaw d'accord alors mais mais mais Bou Siteu naka naka Dubaay dund ba naka Dubaay waaye Dubaay daal neex hmm. dund boo xamante ne nii musumaa gis lu mel noonu ndaka de hmm. ndaka man li ma nekk fii di dund xam nga man musumaa tukki waaw mosoo tukki nekk fii di dund di gis ay super ay njaganjaay ay emprunté yu lang <laughs> ma dem beneen dëkk. ma xam ne nag maa ngi soog a ñëw ci dëkk bu tax ñuy wax dëkk. waaw foofu amul njaga njaay amul lan ay ngay romb ay seret ay ay kok kok kok si mbedd yi. Mhm. affaire yi maanaam foofu ay foofu ça fait diamétralement opposé daal ak dëkk Dubaay dëkk bu neex dëkk boo xam ne nii nii mhm. dëkk bu calme. d'accord est-ce xam ne man dàll bu bees dama koy jënd Dubaay. Hmm. dama koy sol dox si kërën kërën. Ah. te dàll bi doo gis fenn fu taq wala fu tili man loolu ma gën a yéem si biir Dubaay. amul poussière amul suuf. amul poussière amul suuf dëkk bu sedd guy. Hmm. boo gaaree sa oto xam nga fii boo gaaree sa oto xëy da ngay gis oto bi pënd. waaw poussière yàlla boo ko gaaree nag Tivaouane Peulh <laughs> ba nga yeewu ba xëy. chaque jour nga dem di raxas sa oto. maanaam foofu. dàll yu bees boo ko fa solee mu nga ko fa sol semaine dàll yi du mës a doo si mës gis tas tas bu tilim. d'accord ndax dëkk bu rafet. Uh-huh. dëkk bu set wicc. xeer sax doo ko fa gis. Hmm? comme fii manifestation yi ndaw sax. Hmm. ku sëgg for xeer toj sànni. Ah. foofu doo gis loo fa toj. doo gis loo fa toj parce que amul ay xeer. Hmm. amul xeer amul moo tax Dubaay. waaye waaye sunu njiitu réew yi. mel leen ni waa Dubaay. Dubaay Dubaay Dubaay Dubaay dëkk bu doy waar a ngi noonu. mais Dubaay buur la am te ñun président la ñu am. waaw président lañu am fii ñaata président ñoo fi jaar ñuy ku ku ñëw nekk ministre sax nekk milliardaire. si Sénégal. kon ñun ñun Sénégal du développé. ku ñëw nekk ministre ñu ne milliardaire. Mhm. ku xëy ne ëksëkët ñu ne milliardaire boo siiwee sax ñu ne xool ko léegi milliardaire la. <laughs> milliardaire yooyu xaalisu jeunesse bi la. mais nañ bàyyi xaalisu jeunesse bi ñuy jël di ko sàcc ku ku toog maire. ne ne ñu ne milliardaire milliardaire bu yomb. Mhm. te gars yi liggéeyuñ daal. loolu nag yaa ci war a wax parce que jeunesse bi yow yaa leen fi nekk. non loolu dafa métti te bi xam nañ li may wax bu baax am na ñoo xam est que xam nga ne am na ñoo xam ne si réewu Sénégal bi. Hmm. ñoo xam ne wallaahi di fayeku comme comme ñuy xëy di di rey seen bopp di liggéey maanaam du liggéey de xëy tëdd ba weer wu dee ñu fay la te looloo fi am am na suñu njiit yu fi nekk yu bëri yoo xam te ni mhm. ñu si bëri liggéeyuñ hmm? jëlal la appartement boo xam da ngay tëdd rek di lekk doo fay te li ngay dundee yëpp riba ngay dundee xaalisu jeunesse suñu xaalis ñun doomu baadoole yi suñu xaalis ngeen di dundee te yooyu dafa war a jeex Sénégal te loolu ñun xam nañ léegi circuit yëpp mhm. li fiy daw yëpp xam nañ ko. Mhm. di maanaam di di tëdd di xëy di yeewu. sag mhm. weer nga faye ay six cent mille. Mhm. ay sept cent mille huit cent mille. fii bëri na fi ñu si bëri xam nañ ma bu baax te nañ dawal ba si kan gis ngeen yooyu bu arrêté wul ñoom ñëpp naa leen wili pande feeñal leen duma <laughs> leen duma yu <laughs> métti na génnee leen ci réew mi ah, ndax ay riibaa ngeen di lekk ah, mais ngay xëy di nelaw di yeewu di fayeku chaque weer huit cent mille ñoo xam te ni ñoom ñoo ñu jiite yor suñuy centaine de milliards di jël milliards sénégalais yi. te ñu sonn amul ndax lan alalu politique. ndax leen bëgg àndal ak man dee ma waxal. Mhm. fii am na ñu fiy toog di di di tagg ay nit. Mhm. xam nañ lu tax ñuy tagg te ba léegi duñ arrêté tagg yi ndax ñooñu duñ fay appartement. Mhm. duñ fay lekk. xaalisu jeunesse bi la ñuy dundee xaalisu riba. te suñuy njiit ñoo leen ñoo leen di defal loolu. te loolu dafa war a jeex. fii Sénégal nit ñi da nga war a liggéey am. d'accord léegi dangay liggéey di. te nelaw muy dox. yee wala ngay liggéey te doo am wala ngay liggéey toxala ñi fii liggéey mm. doo gis kenn tekki doo am fii ñaata nit nga fiy gis amar marchand ambulant ñuy xëy mm-hmm. ah, est-ce que ne am na ñoo xam ne journée deux mille la ñuy liggéey di dang dangi ba suba ba fajar ba ba ba guddi di dang dangi journée deux mille si mm-hmm. ci suñu Sénégal yàlla baax na usines yi nekk fi mm-hmm. ñuy tànn ay nit ñuy dugal ci liggéey usines yu baax yi di jël jeunesse bi di leen sànni moo tax jagartaay booy jagartaay ay jàmbaar lañ liggéey leen rek booy lépp ay baax incha allah barke alxuraan alors ñu delluwaat tuuti tuuti fu Dubaay rek naka nga doon dundee biir Dubaay ak ñu fa nekkoon maanaam tubaab yi ak ñi nga xamante ni si yeneen dëkk yi la jógee ñëw bi ñu gisee Bou Siteu nan lañ la accueillir waaw ni ñu ma ak accueillir rek mu nekk Bou mhm. ñu yàgg a suivre Bou Siteu su lu rafet man rafet ak bégal sénégalais rek ah mhm. loolu laa fay ak nekkal fi jeunesse bi mhm. yor baatu jeunesse bi te parce que fépp fu ma mënti dem ak lépp lu ma am yàlla ak jeunesse bi la tey ji bu ma demee ba am terrain Tivaouane Peulh mhm. di ko tabax yàlla ak jeunesse bi la te tey xoolal nu ma toll mhm. ay yeneen teraanga yoo xamante ni lépp jeunesse bi la mhm. kon tey man li fi may fi ma mën a nekk rek damay teewal jeunesse bi. te jeunesse bi ñu ngi fépp nag. Mm. jeunesse bul yaakaar ne nekk Sénégal rek. Mm. jeunesse bi diaspora bi ñëpp ci sunu yaay yi sunu jànk yeeg ñëpp ci jeunesse bi lañ bokk. Mm-hmm. kon ñooñu su ma demee ba yor seen seen seen kii étudiants yi. Mm-hmm. mais xoolali étudiants yi di daj. chaque jour ma génn di défendre étudiants yi te ba léegi suñu njiitu réew yi mënuñu def effort ci étudiants yi. Mm-hmm. te lii nii bu yàgg ay temps jamonoy Ablaye Wade yii amul woon jamonoy Ablaye Wade da ngay sëkkat wax benn affaire rek Ablaye Wade daw ñu xëy rek mu daw faj soxla boobu mhm. étudiants yi nekk si jàmm mais léegi da ngay wax muy mel ni ñun su suñu njiit dañuy fayonteeg ñun mel ni dégguñu la mel ni ñun dégguñu te te te te yéen a ngi dégg li ma leen wax bu baax ah <laughs> mais télé Tivaouane Peulh bi chaque jour ñaata soog moom fay am mais imagine toi léegi yow nga defara ñu télé bu jëm ba Tivaouane Peulh bi ak gaaw hmm. mais defoo fa ay lamp mais pour pourquoi ñu jël ay làmp samp ko foofu noonu télé bi leer. Mhm. oto bu paan gaare képp kuy dawal xel di nga xam ne fii oto bu paan moo fi seere nga esquiver ko maytu ko. mais foofu chaque jour nga gis moto bu daw ba mbëkk oto bu paan camion. Mhm. chaque jour nga gis oto bu daw ba mbëkk ku paan. Mhm. ñaata nit ñoo fay ñàkk seen bakkan tëli géej gii nii tiwaan pël bi. Cambérène ba tiwaawoon pël amul làmp guddi gi mu lëndëm. te Tivaouane Peulh gars yi jaay nañ foofu yëpp jaay nañ maaro bi yëpp. Mhm. te ñu ngi ko jaay ñëpp a ngi tabax. mais boo jaayee foofu noonu yëpp xaalis boobu noonu. mais mhm. investir si nga samp fa ay lamp eh, dinañ dinañ ci bàyyi xel. à travers Dakar Plus dinañ ci bàyyi xel bu baax. mais mais bu lan nga yëg bi nga xamante ni si dugg nga ci avion bi rek mu daal di décoller jëm kaw moment boobu noonu bu loo sentir loo yëg. non lu ma sentir rek muy maanaam stress bu génn si man. Ah. stress ak lu ma metti woon ci réew mi yëpp. ndax la maanaam li ma metti woon ci àdduna waaw est xam nga nii ngay waxee ma nii maanaam amatuma lenn lu ma metti ah? maanaam lépp lu ma metti woon ak képp ku ma tooñoon ah. maanaam ah. baal naa la sax baal boo xam te ne sama niveau moo la baal te parce que ni muy dundee <laughs> ak stress <laughs> stress bu génn si man mm-hmm. ma nekkaat beneen nit maanaam damay mel na kuy soog a juddu mm-hmm. essay xamatuma sax yu yu bon ak yu yu ñaaw yu yëpp génn si ma te parce que fi ma doon rêvé ah, yéeg naa ci avion bi yéeg si avion buy mbëkk nees mbëkk mbëkk nees avion nu muy mbëkk yaa ngi nii xamoo ko moo tax ma nee lu essay lépp lu si avion rek ah. taqal téere lépp lu rek lu am la ah. waaw te que jàng avion bu baax yéeg naa ci mhm. yàgg ci avion bi dix de temps laa def ci avion bi avion bi di mbëkk nees yi mhm. lu ne ma dund ko fa ay anecdote yu doy waar ci avion bi xam nga rek an anecdote yan nga ci mën a expliquer ak mbëkk nees bi koy mbëkk xam nga boo koy mbëkk il faut mu def bruit dégg nees tas naan di nees di jaar fi avion bi mais avion waaw ah, avion waaw mais xam nga ne avion du ay foo am na ñoo xam ne dañuy gis avion sax yaakaar lu ndaw la waaw ah. gis pneu yi naan pneu yu ndaw la pneu yi pneu avion toll na ni fii ba ba si dër bi ah. <laughs> kon rëy na de barki Serigne Touba xam nga avion ku si muusul yéeg mhm. mooy loolu munoo comprendre daal neexaay bi ak buy mhm. jóg. buy jóg waaw avion buy jóg nii. Mhm. bu taqee ne di dem nii. day jékki-jékki rek na fër. fër waaw mais foofu noonu ñu bëri dañuy dañuy ragal di jël kii bi. waaye yooyu bu nee fër rek da ngay bi nii fi nga toog ngay ah. bës benn piton rek mu tëddal la. Hmm? waaw. nga daal di jaaxaar mu tëddal la ba avion bi yéeg ci kaw. waaw bay laal bi diiw yeeg asamaan si. parenteer bi sax su ma su ma bëgg su ma nammee biddiw dama naan nii rek gis biddiw te <laughs> ñu bëri dañoo yaakaar ne biddiw lu ndaw la mhm. biddiw biddiw biddiw toll na ni toll na ni dëkk tiwaawoon pël ba ba golf ah, biddiw benn biddiw <laughs> yow <laughs> te koo ko ci wax du ko gëm est-ce que kon du liñ ko gën a jege ci asamaan si moo tax ñun ñun mel noonu ah, suñu mais bien hmm. mais man man Dubaay laa doon dem de man dew ma ay France yi ak ay Amérique yi de. Dubaay ah, Dubaay <laughs> avion bi day yéeg bay bay bay. waaye bay bay laal bi diiwi laa la wax kon buy dem avion bu avion dem Dubaay ak bu dem France du bokk nu muy non ça fait diamétralement opposé ak avion bu jëm ak bu jëm France ak Espagne yi. Hmm? maanaam limite bi. Hmm. comme ça buy jëm France nii. Hmm. du jël lu ëpp day jël limite. lu tuuti mais Dubaï day laal asamaan si. ca kaw da koy laal di mbëkk nees yi déggoo ma ne la mbëkk nees. mais tiito bi mu mbëkkee nees yi. non bañ hmm. sax avion xar. xar waaw <laughs> mais maa ngi la avion buy mbëkk nees nga mbëkk nees yi nuñ toll. Ah, ay ngandi nees. comme comme ay. jalu nees su mbëkkee nees da ngay gis nees bi di tas naan tëëf di tas yii di jaar ne yii di. xam nga rek. mais amoon nañu ci benn problème ci mbëkk boobu. non amuñu si benn problème. ci yoon bi wala ngeen réer wala. du ngeen xam ne maanaam amul luñ dund dix heures de temps xam nga ni dañuy réer. waaw da ngeen di réer. mais yow ñun si jaww ji lañ nekkoon de. Mhm. chauffeur bi nan la mën a gisee. Mhm. doo gis jaww ji rek ngay gis. léegi kan moo leen guidé ba ngeen delluwaat ba ba mën a yegg Dubaay. mais ku ñu guidé muy muy muy est-ce xam nga ne nit. avion bi xam nga am na ñu nekk si kaw di dawal. même aéroport ba sax. Hmm. am na ñu fa toog jàkkaaroog avion bi. jàkkaaroog écran bu ngand ñoom tamit si dawal bi lañu bokk. Ah? pour yow avion ñiy chauffeur yi rek ay dawal non non. Hmm. ñi nekk aéroportu Dubaay sax. ñu ngi dawalaale. kon kon ñi di gite yoon bi di ñu hmm. wan. avion bi réer ñu ñu yónnee ñu ay avion yu ndaw. avion yu ndaw yoo xam dañuy def wan ñu benn tere. léegi ñu si tere boobu noonu si lañuy topp. ba ne cëpp biir Dubaay. mais mais mais mais Bou Siteu bi ngeen réeree nga en tant que koo xamante ni homme de l'année la ba pare euh, sénégalais yi bàyyi la xel jeunesse bi yow foo dem ñoom nga fa nekk yow bi bi nga réeree yow xalaatoo sénégalais yi non an kay xalaat naa jeunesse bi man nee naa jeunesse bi ñàkk nañ ma ah? te parce que tiit naa tiit boo xamante ne nii ah? xam nga mhm. xaw ma fu ñuy teeree ah, ñun eh. par man sax si diggu ndox la ñuy teeree te parce que waaw mhm. yooyu noonu yëpp xalaat naa ko fa mhm, mais yooyu yëpp jaaxalu ma ndax damaa mën ndox da ngaa mën ndox man fu ñu mënoon tëmb si ndox. Hmm. ma ma ma nuqeegu ma génn. fooy fooy jaar nga ne. yow bi laay jaar. non non boo jaar ci fenn ndox mi yow fa soo nuqeekoo ci ndox mi fan nga jëm. fu may jëm fan maanaam fan nga fee jëm daal yow da dem Dubaay waaye may wacceeku génn man dama mën a ndox man boo bala ngaa xam mën naa ndox dëgg fekk ma ngor boo ma fekkee ngor da nga naan buudu nit mun naa nuuru fii nuqeeku amoo siis ah. <laughs> kenn du gis sama loxo buy feey. d'accord léegi yow léegi boobu toog su fekkoon da ngaa nuur léegi da ngay dem Dubaay direct wala da ngay ñëw Sénégal loolu laa bëgg xam. mun naa feey ba tefesu Dubaay. ah waaw. tefesu Dubaay. waaw yow déggula man mun naa nuuru di di dem. nga yaakaar ne maanaam man damaa mën ndox. da mën ndox. waaw mhm. géeju géejawaay bi. Mhm. la la débuté. géej mhm. géeju géeju géejawaay bi képp ku fi kii. fii àndu naa fekk sama morom bu nekk mu lab. ñu ñëpp ñu labandoo canal bi surux. Mhm. te te man bokk naa si ñuy fee génn. Mhm, mhm, moo yow gis ma nii rek. mais mais mais mais bu bi nga bi nga xamante ni dugg ngeen ci avion bi. Euh, tey ñun la attaché votre ceinture comme comme noonu ñu ñu koy waxee. waaw bu si te nag war a attaché ceinture am nag xalaat seen bi mu bi mu bi mu bàyyi boobu noonu. waaw moment boobu muy maanaam man ba ma toogee si avion bi rek. loolu laa doon xaar station des ceintures. mais damay toog rek micro bi wax ko waaw. d'accord micro bi ne station des électeur bi boole ñaari tëj karaj jàpp buum bi xëcc su ma xëccee rek mhm. bu avion bi di jóg rek mhm. comme ça 16 minutes da toog. Ah, am foo bës. Mhm, micro bi boo bësee rek. bu tàllal sa tànk. d' accord day mel ku lay tëddal. automatiquement tëdd nga tëdd. d' accord. vol bi nga jëloon nan nan la tudd bi ngay dem. Imirak Imigram. <laughs> Imirak xaw ma Imigram daal. Imi ah. ah. Émirats Imaaraat waaw. Imaaraat Imaaraat moom nga jëloon vol bi nu mu neex na. vol bu neex vol bu ngandee. ah. vol boo xamante ne nii amul ci réew mi. d'accord vol boo xamante ne président yi ñëpp a bëgg dugg ci vol yooyu. Hmm? ak Serigne Bamba. nga daal ci dugg yow. ma dugg ci. Hmm. mais Dubaay du dëkk bu ndaw. dix heures de temps ngay toog. Hmm. toog ci vol bi kon kon dix yooyu noonu di ngeen war a escale wala dara. escale non escale luñ dee bañ départ moom escale mais ba ñuy retourner moom lañ ma escale wàccee sama niveau suufeel sama niveau. du tax loolu parce que euh, Guinée lañ escale. Ah? te sama niveau xam nga ni du Guinée. xam nga ni kuy toog naa sama niveau dépassé na Maroc. Hmm? tey jii kooku ñu escale ko Guinée. Hmm. te sama sama niveau du Guinée. kon escale bi la escale Guinée dafa dafa wàcc sa niveau. waaye dafa wàccee sama damaa découragé. d'accord. ba ma laajtee receveurs yi kii ñi ñuy kii affaire yi ñu ne ma fii mhm. Guinée la parce que dafa am ñu ñu war a jël fii mhm. ñu war a dem Dubaï mhm. man leen nag man sama niveau waroon ngeen mooy yóbbu ba ma egg aéroport ba wàcc ngeen soog a dugg dugg foofu te parce foofu du sama niveau dañ laa tàgguwul kon kay dañ oh. lay indi Sénégal après doog a dem jëri waa Guinée barke Alxuraan xam nga ah. rek sa niveau mat na lool de noo sama niveau xoolul sox loolu ah. mooy sama niveau nekkul koy jëlee fii nga war ko yóbbu fu mu jëm mhm. nga koy jàdd di ko di ko wàccee ay Dubaay ay escale Dubaay yooyu yooyu du sama niveau d'accord xam nga rek mais mais lekk bi nga xamante ne ñu ngi leen ñu ngi ko doon ko doon service si biir avion bi yaa ngi doon lekk wala da doon gan-gan comme ni ñu koy defee boo duggee nekk comme sa comme sa première fois ngay jaay classe wala loola lekk nga non lekk naa fa mais tamit sama lekk tamit moom luñ lu ñuy kii la nekkul lekk yoo xam nekkul lu ñëw ma lekk ah waaw nekkul lu ñëw rek ma lekk. kon loolu lekk. waaw ndax am na lekk yoo xam ne sama xel nanguwu ko daal. naa ah, nu mel. waaw nanguwu ko comme ay mboroxe vol. mboroxe vol waaw mboroxe vol am na fa suppu kànja vol domoda vol <laughs> maanaam lu nekk ak vol si lekk. Ah? mais lekk yi du bokk ak man yii laa xam. mais xaw ma sax yooyu. mais mais mboroxe mboroxe vol bi mu ñëwee nan la mel comme mboroxe Sénégal la. wala waaye genre ñeex bi comme wàcc. waaw ñeex bi comme wàcc bu salte sax ma rek. <laughs> moo loolu man yooyu lekkuma ko te ñi ma dendool ñëpp fët la ñuy def seen bopp man dañ may yéew wala ñu yéew wala naar yi ni ñuy def affaire dama yii bugguma ko ñu ñëw rek di lekk noonu laa koy ambalee war bay ba gars di jëlaat kii ma boole leen joxaat leen ko kon ñoom buñ ko indi dinañu dinañu tas sa yaakaar parce yaakaar loo war sama yaakaar xam nga rek mais tamit dañ indaale ay pain au lait yoo xam si lekk yi lay bokkaale d'accord nga lekk yi nga xam ne waaw yooyu laay jël lekk ko noonu yoo xam ne sama xel nangu ko mm-hmm, ma mm-hmm. delloo waat ay fromage ak ay fromage fromage dafa maa mën a suur. mun laa suur ay fromage ak lu ne amaale na si lekk yi. fromage mun la suur. mais fromage suuru ma ay fromage. fromage da nga koy def ci mburu bi rek. ah ko def ci mburu bi wala ci pain wala. mooy la mooy comme yeneen mburu yi muy àndaaleel yooyu laay jël kii fromage loolu rek laa fay lekk. Mhm. kon kon kon xiif nga de balaa nga yegg du baax. non pas man xiif. man damaa ñeme xiif man déggaluma laa. Mhm. waaw loolu dama ko tàmm daal ci xale. maanaam ay xiif yi sonaluma de man bokkuma ñu xiif di sonal de. Hmm? waaw. d'accord alors yow fan nga nekkoon ci Dubaï. maa ngi woon hôtelu Carlton. Carlton. waaw foofu la hôtel. hôtel bu rëy hôtel bu hôtel hôtel lu niveau. hôtel lu niveau. hôtel lu niveau. Mhm. waaw ma jéeri joor la jëlal hôtel bu seer. naata nga doon fay par jour wala. non amul par jour dix jour yi rek. moom moom ngay million et quelque la. oui kon nag niveau bi yéeg mooy yow dama bàyyi hôtel bu doy waar. mais mais mais mais hôtel bi koñ bi mu nekkoon maanaam fi fi mu nekkoon nan la tudd. fi mu nekkoon waaw. ma xool ban tuurati la sax. si Dubaay la rek entrée Dubaay bi boo passé aéroport bi rek secteur bi ngay njëkk a jot. kon yow bu xamoo fi nga nekkoon daa mel. entrée Dubaay bi mooy kii bi la rek nga rek. Hmm? maanaam. Hmm? cité boobu noonu. Hmm? maanaam hôtel bi moo tax ñu tuddee foofu noonu noonu. maanaam secteur boo jëm xam nga yow fii Massa Ndiaye ba ngay ñëw fa laa la wax nga wàcc. Massa Ndiaye boo ñëwee ba Massa Ndiaye si banque bi. foofu nag boo ñëwee ba Dubaay hôtel. ton ñëpp ko xam secteur boobu. Mhm. te parce que. hôtel lu niveau la te hôtel bu mag la. fi la VIP di nekk kon. waaw ah, boo taxi yi sax boo nee Carlotton sax. Mhm. ñu yóbbu la mhm. la yóbbu si secteur bi. si buntu hôtel bi ay immeuble yu doy yu ngand. waaw. hôtel biir bi nag néeg bi nga nekkoon nan nan la mel bi nga bi nga si biir néeg bi. ay néeg bu doy waar néeg boo xam ne carte moo koy tijji. néeg bi waaw da ngay bi rek. mu tàq sonné. néeg bu tijjeekul boobu. dugg. waaw wala nga yoroon sa carte même booy génn sax nga téye sa carte. mooy génn ak lépp carte laa yor. Mhm. waaw. kon niveau bi yéeg na foofu non niveau bu <laughs> doy waar. Mm, jéeri ngoo jéeri joor ndee la. Mhm. añ nga sama niveau. añ na sa niveau moom moo la yóbbu moom fay ma daggal bee. waaw aller retour. Mhm. yéegal avion. waaw moo njëkk a yéegal bu sita avion. jéeri joor ndeela bu baax d'accord mais mais mais bu comme comme dem nga fi nga xamante ne moom moo di Dubaï xanaa léegi kon Amérique bi moom da nga koy bàyyi parce que sa niveau voilà pourquoi may bàyyi Amérique ah ku ci mel ne Ahmed borom noo Carolina borom ngaay mexe uh-huh. kooku ma war a ñëw dëkkam seet si ko biir noo Carolina hmm? war a seet sama fan si nekk Washington hmm? war a seet sama fan si nekk <laughs> ah. Amérique. ku si mel ni booy Bawal. Ah. ak Kaja ak Seexuna. naa Seck. Seck global tey ma ñëw palaasam. neex a fekk Amérique di dem Amérique di woo di indi ay iPhone di liggéey. Mhm. di jàppale jeunesse bi. Mhm. ku si mel ni Seexuna Seck. Mhm. Seck global tey. iPhone yii nii yëpp moo koy jëlee Amérique. doomu ndey Boy Bawal. Boy Bawal di ko nuyu bu baax di nuyu jawaram Kaja. Kaja nekk soxna su baax. mais mais mais bu dafa mel nag euh, Dubaay neex na ndax bu day sañse di génne di sañse di sinap di def ay veste maanaam sañse bu nekk maanaam lu ma sol man lu ma sol foofu du ma xëyaat sol ko kon ma wàcc ah. kon sama niveau wàcc. ah comme ça ma sol dara. Mhm. comme émission nii ni nga may gisee ma sol émission nii. nga seetaan benn émission ma solaat loolu. loolu man niveau bu wàcc la. Hmm? noonu laa ko jàppee woon foofu. d'accord lu ma sol tey du ma ko solaat. Mhm. dàll yëre tubay lu ma sol. Hmm? du ma ko solaat doo mm. mais tamit mais mais ki nga xam ne moom moo di dal na sa kaw nee na sa veste yi nga dee amoo conseil dangaa perte repère ba nga demee foofu moom mu ngi nii dem dëkk bu dëkk bu dëkk fan fan la dem Côte d'Ivoire la dem Côte d'Ivoire waaw ah. mais Côte d'Ivoire man woo nañ ma waroon ànd ak ñoom Albouri. Ah? la job woo na ma ma ne sama niveau dépassé na ay ay ay kii. ay Côte laay jugee Dubaay nga nga bëgg ma jël di suufelaat sama niveau. Ah. la job moo tax wax naa la ko père nag. dëgg la de bëgg naa bëgg ma yéeg avion trop mais sama niveau. Hmm? dépassé na dëkk yu ndaw yooyu ay Côte yi. moo tax ah. booy ay ay Albouri laa bàyyil foofu sax ñu dem. Hmm, hmm, mara mais Albouri nga bàyyi mais Albouri xam nga moom dafa mën tooñ que yow ni nga nekkee Dubaay sa niveau yi ngay sañse lu rafet mu mel ni que dasee soxor parce que tamit bu daan sa veste yi dafa rëy da ngaa manqué repère xam nga rek maanaam xam nga ñëw dañ maa jiitu ci làmb yàgg a bëri Alboury sax xam nga ci mbëru démb yi ci la bokk mbëru démb Alboury ci moo njëkk a bëri Iba Mar Diop ba Iba Mar ah. Diop di soog a pare hmm. moo njëkk a bëri Iba Mar Diop Alboury paa de ah. Alboury xoolal comme yi si ginnaaw hmm. Alboury mbëru démb la ah. maanaam ni ma leen njëkkee yéeg avion njëkk leen a dem bitim réew hmm, xam nga yooyu du am mbër yu muy neex. loolu tax muy siisu sax di saltel di di saltel sama niveau naan buusita li muy sol baaxul. mais na bàyyi siisu yi moom mu ngi nii Côte d'Ivoire la dem. Côte d'Ivoire te équipe nationale moo tax nga dem Côte d'Ivoire. Mm. te da ngaa saraxu ba sonn fi nga ñi nga wool saraxu ñëpp. wax nañ ma ko nga ba ah yëg naa yëpp eh? ma rek. <laughs> yamal ci sa Côte d'Ivoire. mu yem ci Côte d'Ivoire bàyyi laa sa sa sa Dubaï na bàyyi te man sama visa suba suba rek. su ma ah. neexee dem añee ji Dubaï fu mu toll nii suba. Ah. su ma neexee dem añee ji Dubaï. d'accord su ma neexee bee rek man bee yi sax léegi. Hmm? ndeysaan di nuyu ñu baax. <laughs> fu mu toll nii maa fi tée sama bopp. ah ak fi réew mi hmm. toll. ak hmm. ñu may ma sama visa lu bëri. ñaata lañ la may nag. non du ma ko wax. du ma ko wax ñu may catu. <laughs> ku lay catu. non dañ may catu. <laughs> kenn du la catu. kenn du ma catu du ma nangu sax ku ma catu. <laughs> bàyyi noonu rek ba ma def si code. d' accord mais ay France ak ay ñoom Allemagne yooyu noonu kañ nga fay dem nag ak Amérique. non Allemagne yàggul dara. Mhm. yàggul dara ay Espagne yi nii. Mhm. maanaam. nañ mhm. seetaan leen rek. xam nga sama dem bi damaa jékki-jékki rek dem bett ñu bëri. dañ toogaat tuuti nii nii nii rek. mais mais gis bu si te nekkaat si beneen réew. yàggul dara matu sax quinze jours. nga nga demaat. moom. Ah, kon kon bu na sënes bi moom dinañu mer moom. non nu mere. ah ngay dem rek dina fi bàyyi. da leen war a mais pourquoi du ma leen fi bàyyi. Ah. man waxal yi may waxal jeunesse bi est-ce que jeunesse bi mun nañ ma fay. déedéet mais jeunesse bi munuñu ma fay. dëgg la. maanaam dafa am ñu bokk si jeunesse bi ñoo xam te nii mhm. dañuy xaxar Bou Siteu di wax lu ñaaw si Bou mhm. ñoo ñu jàppee ma leen sax ñu bokk ci jeunesse bi mais ah. jeunesse bi ñu bëgg Bou Siteu dëgg ak ngeen nekk ay jàmbaar doo mës a gis ñu commentaire lu négatif mhm. man da ngay gis sax sama dem Europe bi da ngay gis sax ku commentaire lu négatif waaw ndax ndax mel ni ku yéenewul Bou Siteu tukki tukki waay mais yow bu xam nga rek am na yoo xam sax rafetul quoi. mais bu ñu bu ñu naan bu dafa dafa dem Dubaay fay fay portable jeunesse bi loolu noonu naka la lay def. non fayu ma ko. Eh, da nga koo fay kenn déggu ko neexoon xam nga moo mhm. ma dem foofu noonu jënd piisu Dubaay. d'accord monte ko fii kenn dootul kenn dootuma mën a jot. Mhm. mais sama numéro bi ma nit ñi di jotee whatsapp bi. Mhm. moom laa doon kili moom laa doon. doxalee foofu Dubaay muy dox. d'accord piis bi moom kenn mënu maa mais képp ku ma daan jot ci whatsapp bi Sénégal fii doon nga ma jot foofu. waaw parce que man doon naa la gis estat yi. Mm-hmm, mm-hmm. ñaari téléphone yëpp maanaam man. Mm-hmm. ak nu ma mënti mel. sama numéro bi man bokkuma ak ñuy man duma ma mës a changé sama numéro. Hmm? maanaam xam nga am na mbër yoo xam ne sax dañuy toll benn niveau changé seen numéro. seen fans yi ñi daan sonn si ñoom ñi ñu waroon dimbali. kenn dootul amati seen numéro. man nag bokkuma foofu. Hmm? man du ma warkat du du ma kanaara du ma défaillant du ma du ma mës a changé piis sama piisu Tigo bii ngeen xam hmm. moom ngeen mës a xam si man hmm. ak fu ma mënti toll nag moom moom ngay yore. moom laay yore ak sama piis bi orange bi. d'accord mais mais bu ñu bëri dañu nit bu dafa demoon fi nga xamante ni moom moo di Dubaï pour noos mais pas pour entraîner te da ngay waajal combat lu tax loolu. mais nice bien sûr parce que. un fokk may génn tamit di dallu. waaw mais man nekkuma fuy ay bëgg-bëgglu Europe di dem Europe di di di. nekk foo naan damay liggéey affaire yooyu. man damaa demoon Dubaay pour noppalu. noppalu moom fu yow boo gisee boto bu ñu ma liweel nag. boto boo xam te ni may yendu foofu presque ba guddi. ba guddi lépp rek pour visiter noppalu. Mhm. boto boo xam ne am na néeg. Mhm. am saal am lépp am lal. Mhm. am lépp daal. d'accord. am couloir. am lépp te lépp man maa sama jëmm. moo tax jéeri joor ndee la. liwel ma boto. fan nga dem ci Dubaay pour visiter photo wu def say achat yooyu noonu fan ak fan. fépp laa dem. Mhm. fépp foo xam ne nii képp ku dem Dubaay bëgg xool fu rafet. Mhm. fépp jéeri joor ndee la dugal na ma fa. Hmm? ma jommi. nga jommi gis lu ma musul gis. d'accord mhm. fépp foo xalaat. ku ci mel ne ku baax pro bu baax. Hmm. kii bi rek. waaye nu mu tudd étage bu gudd bi immeuble bu fa gën a gudd. immeuble bu fa gën a gudd nu mu tudd. te fa. Aziz Ndiaye na fa. ah. Bourdieu mais xanaa Moussa dem Dubaay <laughs> yow saa yi nan na affaire yi de dem naa ba Bourdieu ba ba fi Asi Ndiaye taxaw dem naa fa. ah kon sa niveau yéen Asi Ndiaye moom du n'importe xam nga maxet te du xam nga maxet. international. maxet pako booy. pako booy gis ma Dubaay. feeñu ma. dama mm. booy ba dama lay suivre te milliardaire la. Mm. pako booy doon doxantu nii rek. ku xeebu maanaam pako booy pako booy di nga di nga nax ñu bëri. Ah. ku maanaam jëmm ju xeebu. te minti milliardaire milliardaire la dëkk Tëngéej. li may wax waa Tëngéej xam nañ li may wax bu baax. Mhm. nekk xaritu Michel. Ah. nekk xaritu waa Tëngéej mbaru Tëngéej yëpp ay am a neex ak ñëpp. Mhm. moo ma recevoir këram. d'accord dafa mën teraanga yu doy waar. dugg sama sama sama sama TikTok. Mm-hmm. d'accord mu nekk këram. mais bu ñu bëri dañu ni bu dafa dem Dubaay takk fa jabar. loolu nag bëgg naa mu leer soxna si nag yaa ngi yëngal sama sëy. Ah, <laughs> non non yaa ngi yëngal sama sëy. te ah, parce que Dubaay non 10 jours la mais 10 jours nan laa fa mën a demee di tax xanaa loolu takk suuf lay nekk. ah mën ah mais xanaa loolu takk suuf la. takk suuf de mën naa nekk takk bu normal sax. mais non xam nga rek boo waxee loolu tamit mun nga yëngal sama sëy. non non du ma ko yëngal sax dama te dama nekk ci bu neex. te uh-huh. bugguma sax muy yëngu. Uh-huh. bëgg boo waxee loolu da ngay bëgg a yëngu. pour nopp la nga may wax waxu kii takk ay yooyu. d'accord mais mais mais mais mais bu. booy euh, takk sax da ngay takk ku dégg olof foofu kenn déggu fa. olof kenn déggu fa olof ah. kon munoo wax ak ñoom. munu ko fa ñoo ñu làkk yu ñuy làq sax man xaw ma ko. Ah? kon noo doon noo doon defee ak ñoom di wax yooyu noonu di waxtaan non xanaa yi fa nekk ak mm. gambien yi ñi may dajal d'accord fu ma romb muy mel ni dëkk bi damaa yàgg si dëkk bi fu ma mm. romb ñi ñi xam ma ñu naan buusita buusita buusita buusita bu dul oh, jeex léegi léegi kon international nga nag non international ku si mel ni ñoom Maysa borom foldu yi borom iPhone yi Maysa ah. doomu nday laay seen business mm-hmm. borom transfert yi laay seen di ko nuyu di nuyu mbay sama <laughs> pro bi ñoom Mansour xam ma <laughs> ñoom ñëpp daal ñooma dañoo doon ñëw sama hôtel xam ma <laughs> seet si ma foofu noonu ku si mel ne Cheikh Ndiaye borom Massa Ndiaye borom oto yi Cheikh Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit ñëw na ba foofu seet si ma ak ñeneen ak ñeneen ay pro ay pro yoo xam dañuy dégg maa ngi Dubaay Carlotton rek ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw seet si ma d'accord ay pro yu baax mais bu ak fi nga toll niveau bi nekk di ko nuyu bu baax nee na ak fi niveau bi tollu moment bi ñu naan Bou Siteu dafa am ay yu mu sàcc ci ci ci biir vol beeg yu mel noonu waaw bu yooyu tamit ah. boo ay ree la koy jàpp Tafa Gueye 2 la. <laughs> ñuy signature mu gis ma ma takk loolu. te parce que moom gëj naa yéeg avion mbëru démb jamonoy mbëru démb ba léegi la gëj a yéeg avion. Ah! moo tax mbëru démb ne moo tax akamaa yërëm yenn mbëru démb yi. Ah! gëj nañu yéeg avion dafaa ngay doo ko xam. Ah. xam ne vingt ans ngi nii yéegul avion vingt ans nag laa la wax. moom vingt trois ans. mu mu xam nga rek daan na mu avion nag moo tax bu <laughs> gisee ma sol kii wu avion yi signature bi mu mun a damaa sàcc lii bi si avion bi. léegi kon loolu foo ko jëloon ba mu doon ko sàcc. mais loolu si avion yi képp ku yéeg avion. mais Dubaay laa doon laa doon dem de Dubaay laa jóge tamit. dañ lay joxaale li nga xam ni booy nelaw maanaam. Hmm. di da ngay nelaw ba sonn dix heures de temps nga koy toog. d'accord. Hmm. il faut que ñu jox la affaire yooyu ngay boo bëggee nelaw nga teg sa bopp def nii. Hmm. pour loolu kase la woon. mais bu waxee loolu xam ne nii day gën a mettil boppam làmb ji rek. léegi yow sa làmb moom noo ko noo koy ah. préparé làmb ji. mais nu ma koy préparé rek di waaj génn pour dem ndax loxo yu wóor yi ma nekk rek nee nañ ma bu combat bi sox ndax ñoom dañoo soxla combat bi maanaam ci loxo yu wóor yi ma nekk nee nañ ma combat bi kenn du la fi bàyyi nga koy préparé fii ah, kon nag ngay génn Sénégal mais bien sûr. kon voyage xam nga rek. maanaam loxo yi wóor yi ma nekk dañoo soxla combat bi déggoo lu ma la wax. bu baax ku ci nekk nag nee nga ma. Mhm. dëkk bii ngay dem kii nee na ma fii ngay dem kii nee na ma Amérique ñii naan Espagne mais nag après loxo yu wóor yi waxtaan leen seen biir rek. Ah. te parce que combat bi bëgguma fi nekk nag di voyage di dem fii di dem fii di sonn. ndax Tapha Gueye dama war a dem benn dëkk difficile. Mhm. entraîner ko lu doy waar. Ah, lu metti teg ñëw nekk ngandi nit. mais oto loxo yu wóor yi ñu ngi xuroo seen biir sax. Ah. kii naan noo Amérique lay ñëw. Ah. kii naan amee noo kar naan fii lay ñëw <laughs> xaw ku nekk daal. ñii naan Allemagne lay ah. ñëw kii naan ay ay France ah. ñii naan Espagne mais waxtaan leen seen biir rek waaw ñoom ñi ngi waxtaan seen biir ku si mel ni Iliman Lam rek ah. moom moom sax dina la coow li mm-hmm, mm-hmm. waaw ku si mel ni Iliman Lam dina régler coow li wala Baye Ndiaye régler coow li wala Jéeri Joor Ndeela mm-hmm. wala Assis rek la coow li xam nga rek ndax coow li bëri na trop ku nekk naan buuf si man lay ñëw préparé kii naan fii lay ñëw kii naan fii lay ñëw di xuloo seen biir loxo yu wóor yi ma <laughs> nekk mais li dina rek la coow li naa Sekk borom borom Sekk Global dina rek la coow li léegi ñu xool Bou Siteu ah. fan lay ban dëkk lay dem ah. préparé ji ndax sama niveau léegi dépassé na yenn niveau yi mhm. sa niveau dépassé na yenn mais mais yow boo borom choisir entre dëkk yooyu noonu ñu la ni ma yow fan nga war a dem non fi ma war a dem rek loolu maanaam ci loxo yu wóor yi la nekk. Uh-huh. yow loolu ñëpp xam nañ ne Bou Siteu bëgg naa dem New York. Ah dox ci suufu New York bi. <laughs> xam nga rek. Uh-huh. yooyu noonu yëpp bëgg naa dugg. même Allemagne tamit bëgg naa dem Allemagne. Hmm. fekk fa sama papa. xam nga rek ku si mel ni Mamadou Lamine Maïga borom Allemagne borom mm-hmm, conteneur yi mm-hmm. waaw di nuyu Ablaye Diouf bu baax mi nga xam ne moo géré conteneur yi fii Sénégal mm-hmm, lan nga naral yëpp bëgg naa fa def lan nga naral parce que Tafa Gueye dafa mel nag yàpp na la daf maa yëpp boo gisee affaire doon kii ñeme na la de rek daf maa ñeme te daf maa yëpp te ba pare dafa am lu mu umpalee ah. ndax dafa yaakaar ne combat bi comme si combat moo Roland Ndiago yi mu jigee yooyu ñoo mel maanaam bu yow da daje ku pànk hmm? maanaam xam nga pànk dafa am xam nga di yenn saa dinañ la ku jigéen kii ak a pànk <laughs> kii ak a pànk ah, mais ah. ku pànk nga dajeel koo xam ne xeex moo ko gënal xeex moo ma gënal lu ne loolu mën a am toog naa Lat Diop ne ma kaay ma recevoir la nonaas xeex taxaw ma dem topp ji xeex te yëgoo loolu xeexa ma gënal loo xalaat te ak bi bi nee pip rek ah. maa ngi sa kaw di nga xeex ba génn télé kooku dinañ ànd di dem ardo di dem di ñëw hmm? waaw man amul ay buusita man ngay bëral paa ngay bëral de mbëru démb de ah. wallaahi dinaa ko dóor dóori métti di ko wan ne mbëru démb da ngay zibile génn ci lamb yi comme comme kayre nu mu zibilee bàyyi mais moom mais moom nee na dafa zibile bàyyi nga ne yow doo zibile di foqale di ñiit lamb kuy kuy ñiit lamb nga <laughs> te naa la duma duma yi métti dafa gëy doo mbëru démb bi nga doon accord mais mais mbëru tax na mu ni lépp loo xamante naqare woon na ko rek ci ci ci làmb ji rap ci yow la koy rattrapé ci ran la koy répondre waaw ah. te te mooy comme lu ma la wax rek ah. moromam yëpp zibile nañ ah. mais yow xoolal Zallo waaw Zallo Tafa Gueye 2 moo mag Zallo fuuf mhm. te Zallo ba mu zibileeg léegi war na mot ay 6 ans ba daal di bàyyi dem yoon Tafa Gueye numéro 1 ba mu zibilee léegi yàgg na mhm. ay ay Xaadim Njaay ñëpp sibile bàyyi xam ni léegi xale yi ñoo mën affaire yi. d'accord moom mun na day day day tiitilu di da ngay tiitilu di foqale foqal <laughs> naa la duma duma yu métti combat bi boo si jógee fa ngay jaaree sibile. génn ci làmb. génn ci parce que boo jugee ci man fii ngay bàyyi ñëpp nag dinañ la tàj na la ah Tafa Gueye nag aas yi mën na. fii ngay sibilee. bàyyi dinaa la dóor dóor yu métti. Hmm. moo yow pour yow Tapha Gueye la sunu combat day yomb. Ah. naa ko duma duma yu métti wan ko ni man duma Laurent Ndiago. Ah. comme yooyu muy def ay daw rocceeku. waaw ah. Laurent Ndiago waaye loolu dafa maa métti te loolu dafa yomb. Hmm. te man bëre bi may yor du bëree Laurent Ndiago. d'accord. waaw d'accord mais mais bu lan ngay wax ñi nga xamante ni dañoo nay tey bu ñu diggee bu Siteu dara rek duñ ko ko jox ñi nga xam dañoo nay nay tamit. mais nay baaxul. Hmm, hmm. maanaam nga dig nit tas yaakaaru nit man ñaata nit a ma fi dig oto mhm. yow est-ce que déggati nga sax may toog di wax waxu oto non non doo kenn dootu ko déggati ñaata nit ñoo toog dig ma oto tas sama yaakaar mhm. te su ma neexoon fekk leen fi ngeen di liggéeyee fuuf ne leen oto bii nga may jox ndax yaa ma ko dégg ah? mais yooyu sama niveau sax moo dépassé yooyu <laughs> yow diggee bor la wala diggee du bor diggee kay bor la moom mais nga dig bu sita oto ma mhm. war a xëy ñëw jël oto bi nga naa ma seeka nii c'est-à-dire mais kenn du Baye Ndiaye alburaax kooku borom oto yu wóor yi ak ku si mel ni jéeri joor ndee la borom Dubaay neex a fekk Dubaay koo xam lu mu dugul ci oto ci réew mi mhm. baaxul léegi sax boo bëggee dégg-dégg man oto ku yor sa oto di ma ko may oto buy jugee fii. Ah. soxlawu ma ko. Ah? waaw oto buy jugee oto buy jugee Dubaay laa bëgg. <laughs> te Dubaay ay oto niveau laa fa gis. <laughs> li may wax jéeri joor ndee la xam nga. Ah. Baye Ndiaye xam nga li ma lay wax bu baax. Eh. dootuma toog di sax di di ñaan oto sama niveau. Mm. dépassé na naan ay oto laa bëgg. maa ngi toog léegi tax xam naa ne léegi ñu ne ma bu sa oto wàcc na. waaw nga daal di nga daal yow tamit. waaw ma ciblé comme gars yi. d'accord mais mais problème mu Liss Ndiago ak waaw naka nga ko gisee. non ni ma ko gisee rek muy am déception. Mhm. waaw maanaam ñëw ci signature. Mhm. ñaari nit di xeex. Mhm. man loolu. man loolu defar la si man. la si yow yow sa niveau yow romb na doo def sama niveau dépassé na yooyu. moo tax nag bañ jubóowee. di sant Eumeu seen bu baax si jubóole bi mu leen jubóole foofu avant ñu fay dem. di wax ne champion nii ngay mel. boo gisee say raq xam nga nga bokk ak ñoom làmb bokk ak ñoom jotaay heure am. def nga geste bu rafet Eumeu Sène maanaam man guddi yi lépp lu ma te yoo xam nga ne damaa jàppaloon mbëri mag yi kii eh, am lu ma leen jàppaloon mhm, bis ni ki tey mhm. jour signature ba laa jéggal laa leen jéggal ñoom ñëpp ah? xam ni mbër yi ay ndaanaan lañ ah <laughs> gis nga giri bër fan yi parfum yi li ma ko fi wax waaw waaw gisoo keroog signature dana ma buu man yow rek laay topp ah? kon tey ana ñu si doon wax waxu seytaan di ñu jaxase nday mbiligi laa taxal mu ne ma buu yow rek laay topp ndax yow da ngay da ngay da mais man attaqué bi ma ko attaqué ndekete di wax si moom si parfum yi. Ah. parfum ndakata loolu lu ko neex la. nga naan na na delloo parfum. waaw na na na delloo parfum da ngaa sàcc parfum jàmbur xoolal loolu Gris Bordeaux ndakata Gris loolu lu neex Gris Bordeaux la. d'accord Mamadou Yatta Saay xam nga fan attaqué woon naa ko. moom mu recevoir ma ma 200000. dal ci moom ne ko sama niveau dépassé na 200000. ay doomam nii ne Cheikh Yatta Saay ak Dou Yatta Saay ak Ahmed Yatta Saay. chaque jour ñu ne ma bu attaqué waata sunu papa. ah dañuy wax nga attaqué ko ko. chaque jour papa bi fay na waay <laughs> te parce a Bou Siteu moo nekk koo xam ku ma wax si yow nga tàq <laughs> mbay guy gi maa ngi ko taal mbay guy gi ñaata yoon la ma topp na ma bu ngir yàlla attaqué ma hmm? ma attaqué ko ñëpp xam mbay guy gi mais yenn saa da nga gis Bou Siteu génn attaqué nit nga gis hmm. ay seytaane di di di di def ay conférence de presse. Hmm? comme comme ay mbër. mbër yi bokk si association gis jeune leader bi jour boobu. te yàlla xam na ne attaqué naa Gris de mais man xam naa. xam naa giri dë magam raqam xam na bu baax. kan mooy mais ñu xamul tey jii ñu bëri di génn. naan dañuy def naan non giri du sàcc parfum champion la buusita li mu wax. te yéen a ngi wax rek te rus ngeen. tey mbili gi laa taxaw mu ne bu yow rek laay kontaan naa si attaqué bi ma attaqué. <laughs> ndax xam na ne buusita ka fooree lay def daal. Mm-hmm. man giri booroo giri booroo la laa ko xamal lu ma la dara. dara ku mag yow dërëm. kon su ma la attaqué rek attaqué Balla Gaye man Balla Gaye 2 keroog lan la ma wax bu doo ma sarax nga attaqué waan ma Balla Gaye 2 <laughs> barki yàlla bu muy ko sama mbaxanoon ma ko sama fee loolu la bu ngir yàlla attaqué waan ma waaye <laughs> xoolal lii ma la wax <laughs> keneen gis naa rek nga naa ko Balla Gaye 2 musoo ma jàppale musoo ma jàppale gis nga te combat bi nee na ma dinaa la jàppale ba nga xam ne jàppale naa la eh? maanaam ñoom ñoom isa xam nga ne mbëri ay modloo yi nii man lag la ñuy seetaan samay interview la ñuy topp ndax xam nañ ne bu Siteu mii même bu attaqué nit sax. Mhm. boo ko dégloo da ngay ree ba tas. dëgg la loolu lool nag laa laa xam nga si jublu waaye laa si jublu mhm, d'accord mais man mbëri samay ndijaay lañ sumay papa lañ mhm, mhm, waaw c'est que jotaw ma ak ñoom dërëm d'accord mais yenn saa nag am ku ñu tooñ jeunesse bi mu metti ma waaw ah, loolu da koy lijjanti moom dama koy lijjanti ndax ah. maa fi nekkal jeunesse bi te wax rek damay wax après mu jeex mu jeex dëgg la yee combat ma ki nga xamante ni moom mooy Tapha Tine Balla ak Tapha noo ko gisee combat boobu dina dóor Tapha ba Tapha Tine di raam dina dóor tafaatin ba tafaatin di raam. ak tafaatin fu mu toll moment bi fi tafaatin toll. Ah. sa xam nga ne Balla Gaye 2 buy ñëwaat nii ci làmb. Mhm. dina ñëw ñëw bu doy waar. Mhm. yaakaar nga ñëw bu bees maanaam ñëw yoo xam ne ni bokkul ak sax yii paase. Mhm. Balla Gaye 2 ñun xam nañ tolof tolof yi nga jógee yëpp. d'accord te xam nañ ni booy ñëwaat. géejawaay bi ñëpp dinañ. Balla Gaye 2 xale la de. xale la maanaam yi mu teel a jël noonu ci yaramam. Ah. moo tax sax ñu bëri yaakaar ne Balla Gaye 2 sax jeexal la ci làmb doom mi doon naan wala mais Balla Gaye 2 ndaanaan la te di ñëwaat est-ce xam ne Balla Gaye 2 dina indiwaat roi des arènes fii Balla doonaat roi des arènes dina indiwaat roi des arènes biir géejawaay indi ko golf dangay wax la neex rek ndax Balla Gaye 2 instant yi dafa dafa décidé hmm? dafa décidé INSEPS waaw gars yi xool nañu yaramam xool lépp hmm. ñu war ko defal opération si biir bi opéré Balla maanaam waaye INSEPS. ak baay Ndiaye Aziz Ndiaye dañoo jug. ñu toog ñu réunion. ñu xam ni Balla Gaye samp champion bu mag a ngi nii. d'accord koo xamante ni nii moo fi jëlee Yékini ci làmb ji. Mhm. jële fi daan fi tafaatin. Mhm. daan fi ay ndaanaan yu doy waar. dem ba indil ñu roi des arènes. Mhm. gars yi toog xool ñu ñu xool. ñu xam ne Balla Gaye 2 mii nag am na feneen fu ñu war a jaar. Mhm. pour Balla Gaye 2 ñëwaat nekkaat roi des arènes. nekkaat roi des arènes. waaw te dina nekk roi des arènes du yàgg dara. Mhm. xam naa ne xam naa ne fi ne nii sënës bi sonal na la téléphone baa ngi sonal rek. nga voilà kóol kóolu sënës bi. ndeysaan ndeysaan dañ laa bëgg nag. xam nga rek maanaam sënës bi bu si rek la ñuy topp. waaw ah. est-ce que xam nga ne man sama téléphone bi mënatuma tontu nit message. Ah. comme ça ni nit vocal ma nii ma tontu la nii non non. ndax jeunesse bi xam nañ ni man jeunesse bi ñëpp si man lañ daw si ñëw. waaw mais mais ki nga xamante ne moom moo di Alboury da cee siis de parce que Alboury bari ki dem daf maa woo ne kenn topp ko. nga lan la ma léegi yow laa jël jëlatuma ko moom te moom xaritam laa. ma ne ko Alboury day siisu. <laughs> day siisu te mbaru la Alboury ku yàgg ci làmb la <laughs> xam rek d'accord waaw moom du moom du dara daal du dara. loolu mm-hmm. loolu la xamul nag ay tapet rek lay bëral di leen daan. Mm-hmm, d'accord ah, mais nag mais nag sama sama xarit la yéen ñëpp sama xarit ngeen bu ko bul ko xas alors li nga xamante ne moom moo di niveau bi moment bi ñu toll na comme dem nga Dubaï ba ñëw. Mm-hmm. fan la niveau bi toll dikkaat nga Sénégal. jaxasoo waa nga ak waa jeunesse bi yooyu noonu moment bi niveau bi rek ñu ñu tëj parce que xam naa ne. non instant yi moom soo bëggee dégg-dégg instant yi damay wàccee niveau bi. da nga koy wàccee. dama koy wàccee. ah mais un faut que ma wàccee niveau bi. te parce que. am na ñoo xam ne nii sama niveau bi dañ ciy mer. Mmh. léegi il faut ma suufeel niveau bi <laughs> wàcceewaat niveau bi. waaw delluwaat buusita 2016. Mmh. dë buusita 2016 léegi buusita 2016 laa indiwaat. Ah, jël naa niveau bi sànni ko ca xaj. ah ba boo solwaatee niveau bi du metti non du metti te parce que niveau bi. Mmh. mu ngi Dubaay. d'accord bul fàtte ne mu ngi Dubaay. donc ko fa dénkaane. waaw te visa bi at yi fi nekk rek. at yooyu rek. dafa doy waar. dafa bari waaw bari na torop daal. Hmm? waaw di nuyu maam Samba bu baax. maam Samba. Hmm. waaw nekk ba Dubaay yor fa bureau bu mag sama Gambien bi di. Hmm, maanaam kooku lu mu jaayal ci ci ci ci kii baaxul. ci téléphone ci visa. Ah, visa d'accord di defar ay visa Dubaay yu leer. maam Samba. d'accord ay visa Dubaay yu leer lay defar. barki Serigne Bamba. sama nit ku baax maam Samba. di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm bu baax. waaw ku ci mel ni maam Samba. borom visa yu leer yi. gaaw waaw maam sàmba nit ku baax. kuy jàppale Bou Siteu. d'accord billaahi. Mhm. d'accord léegi borom borom place bi nag nga nga jàllale ko rek ñu tëj émission bi. waaw borom place bi ku si mel ni Seck Global. mais Mam Samba laa bëgg a wax borom visa yi. borom visa mhm. Express. Aljama Express mhm. visa yu gaaw yi. li may wax Michel xam na li may wax bu baax. d'accord Michel borom Dubaï borom Tëngéej. Mhm. waaw di sant tamit ku si mel ni suma grand bu baax. waaw ku si mel ni Bamba Fall borom almadi Bamba Fall ma koy sant bu baax Bamba Fall wax ma la Bamba Fall maire de chaque jour ma ne Bamba Fall borom almadi ngeen may yóbbu ay maire Médina <laughs> maire Médina musuma jàppale ah? kon santuma ma kooku ah? Bamba Fall bële laay sant man bëgguma kuy soxoree jeunesse bi <laughs> Bamba Fall borom almadi yàlla na sa jàmm yàgg. doomu nday rësul. mais mais maire maire Medina lan moo tax woo ko pour que mu jàppale la. non maire Medina booy Medina yi rek lay jàppale. Hmm. waaw gis nga nit booy jàppale da ngay jàppale gox yëpp. waaw bu Siteu ñëpp xam nañ ni sama niveau. Hmm. dafa toll fu sori. Ah mais kuy jàppale nag di jàppale sa gox. Hmm. ñu lay tudd tamit ci seen tudd du du jug. parce que man maay wax millions de personnes seetaan ma ah, te yéen ñi ngeen di jàppale ni ay ay ay 34 nit a leen vie la ñuy am <laughs> ay 34 vie ay 102 vie la am ah? ah mais imagine toi ngay jàppale koo xam bu waxee ah? ay ay ay 102 ñoo koy seetaan personne bu si ta wax ay millions de personnes kon kuy am millions de personnes lañu war a di jàppale waaye bu morom kenn parce que sëriñ kenn <laughs> li may wax iliman lam xam na li may wax bu baax mhm. Abdou Aziz Diouf xam na li may wax bu baax président Aïssa Asalem bi ku baax di nuyu Aïssa jabaram mhm. jabaram bu sita rek lay topp macha allah waaw d'accord alors nga tàggoo bokk internet yi la doon seetaan boobu waa di tàggoo di sant jéeri joor ndeela mi ma yéegal avion yóbbu ma Dubaay nekk nit ku baax di nuyu Baye Ndiaye sama papa suma lépp Baye Ndiaye Alburax Events d'accord waaw di leen nuyu di nuyu tamit ku si mel nii soxna si bu baax. tey si palaas bi laa ñëw. Ah waaw Seck Global Seck Global maa ngi leen di sant bu baax. di jaay ay iPhone yoo xam ne anguro. Mhm. iPhone anguro. Foldu anguro. Mhm. Samsung anguro. lépp anguro anguro rek. waa anguro gis nga protège ay chargeur niveau. Mhm. waa ay yiy takk si montre kii. Ah? ay Pod ay ay Pod iPod la. ay Paul Wurtz ah ay Paul Wurtz ay Paul Wurtz ay ay Paul ay kaks lépp la ñuy jaay daal di nuyu naa Seck uh-huh. waaw borom doomu nday booy bawal tey lii bu amee yëpp yàlla ak moom la di leen sant bu baax a baax a baax maanaam mun na nañ gën a yaatal sax mm, mm, mm. mais sama niveau léegi moo toll si di gërëm tuuti uh-huh. ndax loxo yu wóor bëri ngeen bëri boo xam ne nii ñëpp xam nañ ñu mënumaa tudd ñëpp <laughs> mais di sant tamit ku si mel ni sama benn xarit démb la ma woo ne ma sama papa may na terrain kan la waaw ah, après fa laa war a dem ni sa agence bi. waaw terrain la ma may. ci ci ci kaw tali Tivaouane Peulh bi si autoroute bi. fi mm-hmm. rond point bi fi ma gën a bëgg fi ma fi ma gën a yàgg a fa buuba. Mm. neel sa papa kontaan naa bu baax buuba ja doomu ndayu musaa mm. doomu ndayu musaa mm-hmm. waaye baay kontaan naa waaye buuba fi nga ma may terrain. terrain lañ ma may nii si damaa jugee Dubaay rek mun ne ma sama papa may na la terrain ndax ni ngay béggalee sama papa di bégal sama yaay. Mm. kon ñi may bégal seen papa yi seen yaay yor ay centaine de millions. Ah. nga nay ah. nga nga nga bañ a teral Bou Siteu mais <laughs> di la sa papa nayul. Ah. terrain la ma may maa ngi nii di ñëw si agence bi buuba. di la ñaanal yàlla defal la jàmm. Mhm. waa di nuyu nag sa doomu ndey. musaa mhm. nekk nit ku baax di wax ne maa ngi ñëw agence ba léegi. Mhm. ñëw nee nañ ma kaay tànn si bu la neex. la. te xoola tey sama niveau fu mu demee ba may jógee Dubaay sax defuma dara bëréew ma daanu ma nit ñu ñëw ne ma Bou Siteu may nañ la terrain ah kon xam nga ni Bou Siteu li muy wax si net bi am na ñu mu neex ñëpp la neex sax wallaahi buuba buuba ja di ñaar ñaanal yàlla defal borom tiwaawoon pël buuba ja suma xarit borom oto yi dañuy jaayale ay oto lépp maanaam ñooñu ñu yàlla dara jaal lañ si biir tiwaawoon pël macha allah alors naka nga gisee li nga xamante ni moom moo di Hmm? Ah, naka nga gisee Dakar Dakar Plus Dakar mu nekk site boo xam te ne site bu doy waar la. Ah, site boo xam te ne nii. Hmm. buñ dugalee tey maam day naaw. day naaw te yàlla nag dafa def ngeen jël niveau. waaw ngeen ñëw seet si niveau. niveau seet kon kon ñaari kii ñaari niveau yi. ñooy ànd rek naaw dem naaw dem waaw barki yàlla di sant tamit gaa yi ñoom mbay waa Dubaay. Hmm. di leen nuyu bu baax ñoom soo ak ñëpp. waaw di sant tamit ñi may jàppale ñëpp. waaw ñi may jàppale daal bëri nañ bëri boo xam te ne wallaahi mënuma sax lim ñëpp. d'accord alors ñu tamit mais maa ngi sant ñëpp. <laughs> waaw di sant gaa yëpp daal barki alxuraan. di sant waa euh, almadee ñëpp waaw di sant tamit suma benn maman bu baax. waaw suma benn maman bu baax maa ngi koy sant bu baax a baax a baax koo xam te nii kuy jàppale Bou Siteu la. ñu koy wax aji grand dame aji suma maman di dem ba Suisse. di fa jënd ay bagages ak lépp. Mhm. waaw suma maman aji maa ngi koy nuyu bu baax dëkk fii waaye forage mhm. nekk sunu maman boo xam te ni nit ku baax la te def ko du social la daal. Mhm. borom Suisse di jënd ay bagages ay dàll ak lépp suma maman. waaw maa ngi koy sant bu baax a baax alors bu bu ñu ngi lay sant ñun tamit di la gërëm. ci disponibilité bi macha allah bi neex na et puis bari tamit li nga xamante ni moom moo di reetaan nañu ba sonn et puis loolu loolu la ñu soxla jeunesse bi lii moo tax tout le temps mën naa leen buusi te lim ni moom mooy mbëru jeunesse bi nekk loo xamante ni si lu lu confirmé lay doon euh, di gërëm également mbokk internet yi nga xamante ni ñooñu doon seetaan boobu ba léegi di wax naan seen xarit buusi laa leen loon tey voilà Ibrahima moo nekkoon ci caméra bi Faara Sow Serigne Saliou moo leen nekkaloon ci micro